dossier Ousmane Sonko Adji Sarr wala Adji Sarr Ousmane Sonko nekk ci guddi gu bët seetagul ndax kii di doyen des juges Omar Maham Diallo nag moom def na collecteur ca dossier boobu mooy daal ñi nga xam ne bii ñoom la doon topp ci dossier boobu pour lëñ bët moo nekk ci suuf dossier ba kii di Omar Maham Diallo nag jeexal na ca lëñ a googa li mu dese nag moom mooy wax li nga xam ne bii mooy cëppaandaw la cëppaandaw la nag ñu ci bari ci Sénégal ñu ngi ciy xaar toppaat wala ñu yóbbu ko fi nga xam ne fala fa la mbaxana nekkee benn pour ñu àtte ba xam ki nga xam ne bii mooy Adji saar wala kii di Ousmane sonk ana kan moo ci nekkut fa nga war a nekk ñuy xaar nag daanaka lu tollook ci benn bis wala lu tollook ci ñaari ayu bis daal ci la Sénégalais yi xam kii di Ousmane Sonko ak Adji Sarr seen dossier boobu fan lay mujjee mooy dañuy bàyyi mu daal di sedd kenn ku ne dem sa yoon wala dafa am ko xam ne bii dañ koy topp wala dañ leen yóbbu fi nga xam ne bii fa la mbaxana nekkee benn pour ñu àttee leen fa